أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan bu yàlla subhanahu wa taala yan yàlla boole jéggal ñaareel bi mooy di am benn rectification bu ndaw ci thème bi donte ne daf ci ëmb après dina ci dugg parce que ndoy daf ma waxoon nañu waxtaan ci wàllu njabar ak gisaane yeeg yi xew léegi ci jamono waaye loolu yëpp incha allah tawhid bi dina ko ëmbaale parce que ñàkk tawhid mooy tax doomu aadama dem defi loolu li tax tey loolu bari muy gisaane yeeg pittaaw yeeg seet yeeg takk ba béjjén yeeg gàllaaj yi li tax mu bari mooy ñàkk a tawxiid ñàkk a kennal yàlla yàlla moom soo ko toppul foog am loo topp ku xamul yàlla foog nga xam leneen loolu moo tax tey gisaane yi bari ba ñu ubbi ci ay rajo di ci invité ay gisaanekat ci télé yi balaa nit di tukki foog mu dem gisaane ji xool balaa nit di uti liggéey foog mu gisaane ji balaa nit di takk jabar foog mu gisaane ji balaa nit di jënd kër foog mu gisaane ji lu ko waral mooy ñàkk tawxiid doomu aadama bu amulee tawxiid su xamulee yàlla day nekk réer ku réer day nekk jaamukatu xërëm day nekk bokkaalekat looloo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam doon ñu wax ne man ara man ata arraafan aw kaahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad yonent yàlla muhammad nee na képp ku ñëw ci pittaawkat mbaa nga ñëw ci gisaanekat mbaa nga dem ci seetkat mu wax la dara nga gëm ko yow weddi nga li yàlla wàcc ci muhammad ku weddi li yàlla wàcc ci muhammad lan ngay doon yéeféer fi mu nekk ni ñu baree bari ci jullit yi da nga leen di gis nii rek ma ay yéeféer lañ parce que saa yoo rombee mbooloo mu toog doo génn sa kër ba ñëwaat lu dul di nga romb ay jigéen ñuy pettaaw te pettaaw ci lislaam def xaram léeg-léeg nga gis ay jabaru ilimaan sax di ko def ñoom ñooy jiite pettaaw bi wala ay jiba ay ay jabaru kilifa diine ñoo koy jiite te yonent bi lim ci jàngale mooy képp koo xam ne dangaa bàyyeekoo sa kër di dox jëm ci loolu bi ngay dem rek soo jullee 40 jours yàlla du ko nangu arbaina yowman la wax laa tuqbal lahu salaata arbaina yowman soo jullee ñeen fukki guddi yàlla du ko nangu bi ngay dem ci yoon bi rek eggagoo ci gisaanekat bi eggagoo ci seetkat bi eggagoo ci pittaawkat bi bi ngay dox ci yoon bi eggagoo soo julee 40 jours yàlla du ko nangu soo demee ba yegg mu wax la dara nga gëm ko yow weddi nga li yàlla wàcce ci Muhammad léegi nag ñu dund ci dëkk boo xam ne ku gisaanewul bokkoo ku njabarul bokkoo looloo tax sunu borom subhaanahu wa taala ba muy wax ci njabarkat yi seytaane moo leen jàngal seytaane lañ àndal parce que dañ doon yaakaar ne Suleymaan nguuram ci nguuruk seytaane la aju woon comme say Suleymaan moo jàngal njabarkat yi njabar yàlla mu ne déedéet wa ma kafara Suleymaan walakin ash-shayaatiina kafaru yuallimuna annaasa sihra yàlla mu ne yonent yàlla Suleymaan weddiwul yàlla wa ma kafara la wax wa ma kafara Suleymaan ñu ne yàlla kan moo weddi mu ne walakin ash-shayaatiina kafaru seytaane yi ñoo weddi ñoom seytaane yi ñoo doon jàngal nit ñi njabar yuallimaan wa ma yuallimaani min ahad hatta yaqula innama nahnu fitna te duñ la jàngal lu dul lañ leen ñun kat musiba lañ walakin ash-shayaatiina kafaru seytaane yi ñoo weddi di jàngal nit ñi njabar moo tax njabarkat boo gis dafa ànd ak ay seytaan dafa ànd ak ay jinne loolu moo tax soo ñëwee mu lay jox ay information yoo xam ne foog am lu ci nekk dëgg parce que ñoom ñooy yónni seytaane yi seytaane yi ñëw déglu kuy ñëw ci yoon bi di ñëw ci kër gi di gisaane si seytaane bi xam na nu mu tudd parce que dégg na nit ñi di ko wax buy ñëw mu ne ko diw mi ngi ñëw place sàngam la bàyyee ko boo yegg see gisaane kat bi leena yow de yaa ngi tudd diw yaa ngi dëkk barabu sàngam yenn saa yi sax mu ne la sa ndey ak sa baay nangam lañ tudd nga defa ne waa ji du nit lu mu la wax tey dëgg la fekk dara jàngeen ci suratul jinn suñ borom subhanahu wa taala mu ne wa annahu kaana rijalun min al ins yahuzuuna bi rijalin min aljinni fa zaaduhum rahaqa musiba bi dal waa Sénégal yëpp mooy duñ jàng alquran wala dañoo jàng alquran teg ci seen tànk yàlla moo ñu wax ci suratul jinn mu ne ci nit ñi dafa am ñoo xam ne dañoo lëkkaloo ak seytaane dañoo lëkkaloo ak ginne yi ginne yee déglu ñëw di leen déey jinne nag jullit du ànd ak moom nit du ànd ak jinne lu dul mu weddi yàlla koo fi gis ñu naan dafa ànd ak ay jinne dafa weddi yàlla ba pare jinne yi ñëw ànd ak moom loolu tax yàlla mu ne suleymaan weddiwul walakin ash-shayaatiina kafaru seytaane yi ñoo weddi tey boo bëggoon am léegi ay jinne pour nga xëy suba nekk bu xaaba bu mag bu leen fàtte ne ñooñu ay buxaaba lañ moo tax alquran ne nañ leen rey gisaane kat ci lislaam dañ ko war a rey ko war a yóbbu ba ci pénc mi sëggal ko jël jaasi daga baat bi parce que seytaane la dafay yàq société day tas kër di tas mbokk di tas ay mbooloo moo tax yàlla ne nañ ko rey yonent bi ne haddu saahir a sayf gisaane kat dagg baat bi rek suñ borom subhanahu wa taala moo nu nettali ci alquran ne dafa am ci nit ñi ñu associé ak ay jinne jinne yooyu déglu lan moo xew ci koñ bi lu xew ci dëkk bi ñëw dee ko gaa yi su ko defee ku ñëw di seetlu ci ñoom ñu wax la say problème parce que jinne yi ñoo nit ñi ñoo dëkk ci biir kër yi ñu ngi fu nekk waaye pour nga am jinne ba ngay communiquer ak moom di liggéey ak moom foog nga weddi yàlla ba pare doo am jinne lu dul nga weddi yàlla lan ngay def daf lay def loo kufru boo xam ne boo ko defee génn ci lislaam misaal ñu ne la da ngay jël alquran kaamil bi dugal ko ci duus la nga saw ci wala nga sangoo deret maa nga rey nit wala ci say cër nga dagg ci lenn baaraam wala nopp wala baaraamu tànk loolu ñuy wax sacrifice la lay def loo ba nga weddi yàlla ba pare mu ñëw far ak yow loo wax mu def ko boo ko ne woon léegi yóbbu ma Dakar mu yóbbu la su ko defee nit ñi naan kii du nit kii waliyu la muqaddam la kii fekk du dara seytaan la àndal jinne la àndal lu yomb la waaye da ngay weddi yàlla boo dee dem safara pour nga am loolu ku safara jaral nag nga def ko loolu kese la mais amul leneen loolu moo tax tey Sénégal njabar am fi place am fi reen sax fi dakk parce que nit ñi njabar lañ gëm ay gàllaaj lañ gëm ay béjjén lañ gëm ay petaaw foo tourné da ngay gis sax ay ay lam yu ñuul ñu takk ko kooku takk lam bu ñuul bi xam nga lu tax mu takk parce que seytaane bi nga xam ne mooy lore bokk ci xeet boobu boo takkee lam bi moom day xam ne moom léegi ci njabootam nga bokk du la def lu bon da lay bàyyi wala bu dee sagar bu xonq la wala bu dee benn pettaaw la wala benn xaaw la su fekkee moom loolu la wax ki mu associé kooku day wax nit ñi takk leen loolu su ko defee moom fu mu ñëw mu xam ne ñii ay mbokkam lañ mu daal di leen di bàyyi waaye mbokk yi loolu kañ la doon mën a nekk ci jullit yi di ko gëm mooy day fekk yàlla joxu leen lu ñu aara seen bopp day fekk yàlla joxu leen ay musluwaay ñu dem di utal seen bopp lu leen di aar mais koo xam ne yàlla subhanahu wa taala def laa jox ay aaya ay saar ay ñaan yu yonent bi indi sallallahu alayhi wa sallam boo ko defee suba ba ngoon seytaane du la mun a dara coow mooy bari rek wahid abdusalaam baali kenn la ci borom xam-xami lislaam yi balaa muy tuub njabarkat bu mag la woon balaa muy tuub danaan dem màkk bu nit ñi dugg ci avion yi mu jaar ci ngelaw li moom daawul dugg avion du dugg bateau ci ngelaw li lay jaar dem aji ñëwaat parce que dafa amoon pouvoir yooyu bi mu demee ba xam ne lii kéeféer la mu tuub génn ci ba set parce que xam na ne bu dee dee dem safara bu ci deewee léegi nag lu xew mooy foog mu leeralal nit ñi lii lan la benn bis benn jinne jàpp benn jigéen ñu indil ko ko mu koy mocc di jàng alquran di wax ak waa ji pour mu bàyyi ku jigéen ki ba ci yàgg waa ji daal di yuux gis nga loolu moo tax Sénégal da nga jeex ñu ne dëmm am na kii dëmm la gis nga lu tax parce que seytaan moo ñëw ci ndaw si wala moo ñëw ci waa ji di wax ci langage am ci gémmiñam su ko defee ñu ne waa ji la kii dëmm la fekk du moom mais jinne moo ko mixé wu moo dugg ci moom mooy manifesté wu di def nii ñu defa ne waa ji la fekk du moom su yàggeen léegi ñu yóbbu ko ci borom xamul lislaam rek mu génne waa ji waa ji taxaw fii ndaw si taxaw fii wala ku góor ki taxaw fii ñu xam ne du woon kii mais dafa am lu ko dugg moo tax ñaata nit lañ fi tooñ tuddee leen ay dëmm ñaata ci Sénégal ñaata am na ay sëy yu ci tas kër tas ci yenn saa yi ñu jàpp nit sax rey ko ci ne moo lekk sunu mbokk taal ko wala ñu taal këram fekk du moom ndeysaan dañ ko tooñ lu tax parce que réer ak ñàkk xam bi mu jàppee ndaw si di ko mocc ba ci yàgg waa ji daal di yuuxu ne ko loo soxla mu ne ko nga bàyyi sama mbokk jullit bii nga jàpp ne duma ko bàyyi jamais mu ne ko kon boo ko bàyyiwul ci kàttanu yàlla dañuy xeex ak yow rek ba saa yoo koy bàyyi du ñu mën dinañ ko def te loolu arrangé wu ko parce que saari waa di jàng courant la bu koy lakk da ngay dégg muy yuuxu mel ne fiilu courant bu ñu la teg di la maas ba caag mu ne ko muy menacé waa ji ne ko su ma ko bàyyee ci yow laa jëm te dinaa la gaañ mu ne ko loolu sama yoon nekku ci li ma leer daal mooy kii di nga ko bàyyi da nga ñëw ci man ak da nga def lu nekk loolu sama yoon nekku ci ba caag jinne ji jooy ci biir ci kaw ndaw si jooy mu ne ko looy jooy mu ne damaa xam ne su ma ko bàyyee it munumaa ñëw ci yow mu ne ko lu tax mu ne ko yow bi nga yeewoo ñaan nga ñaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku ko ñaan ñun seytaane yi duñ la munal dara yow def nga ko moo tax du ma la munal dara mu ne ko sadaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo wax dëgg kon su fekkoon ne tey jullit yi ñu ngi nangoo jàng ñu ngi nangoo sonn ci seen diine xam nañ lan mooy lislaam mën nañoo ràññee kon du ñu nekk tey ay bokkaalekat ñaata tey jullit ngay gis ñu xëy suba jël ndox di sotti seen bundu kër te yéen waa Gunaas moom xam ngeen ne ndox maa fiihi maa fiihi jàmm wala ale bii ñu toog ay kër ñoo fi nekkoon lu tax ñu toj leen du ndox kon kay ndox maa fiihi jàmm naka la jullit di xëy def ndox bundu këram sotti otoom ndox sotti table bi muy jaayee ndox ah lan la bëgg ci loolu lu muy wax parce que ndox dafa sedd na na sedd fii ah ndox jàmm la ñi tox ñi ndox toxal seen kër est-ce que jàmm la kon ndox amul jàmm yàlla mooy borom jàmm kii ngay xëy ne ko allahumma anta salaam wa minka salaam wa ilayka yaudu salaam wa hayyina rabbana bis salaam mu daal lay may jàmm sa kër sooy génn buntu kër gi lan la la yonente wax nga wax bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah nga dem sa yoon soo ko waxee malaaka yi ne la kufiyt wa hudayt am nga assurance di nga jub ba ba ngay ñëwaat xoolal léegi ñun waaye lu tax mooy ñàkk a jàng diine moo tax Sénégal mel nii ñàkk a jàng diine ñàkk a xam lan mooy lislaam nit ñi lislaam moo leerul ci ñoom dañuy làmbatu rek inna wajadna abaana ala umma wa inna ala asaarihim la muhtadin ñun fekk nañ sunu ndey ak sunuy baay ay jullit lañ ñu daal di nekk jullit loolu kese moom mooy sunu dëkk bi mais fii kenn jàngu fi diine ku nekk nag ngaa jàng lu nekk ba mu des diine ku nekk nangu ngaa jàng laa wax lu nekk ba mu des diine te jullit dafa war a xam diine mu leer ci moom lan loo xam ne boo ko defee nekk jullit bu wér lan mooy yàq sa lislaam te tawxiid moom mooy wéral diini ku amul tawxiid sa diine wérul bokkaalekat nga loolu moo tax wa ma arsalna min rasulin amul benn yonent bu yàlla musa yónni illa nuuxi ilayhi annahu laa ilaha illa ana faabudni amul benn yonent bu yàlla masa yónni ak ni ñu toll ñoom ñëpp lu dul yàlla wax na le man may yàlla nañ ma jaamu man rek yonent yëpp nag wa in min umma illa xala fiha nazir amul benn xeet lu dul yàlla yónnee la la yonent pour nga xam ne yàlla dañ ko war a jaamu waruñu ko bokkaale waruñu ko dendale ak lenn sunu borom subhanahu wa taala mu ne innahu man yushrik billah faqad xarama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansaar képp ku ma bokkaale safara nga jëm bokkaale nag lu yaatu la léeg-léeg nga gis mu nekk ci waat waate sëriñ wala waate waliyu waate muqaddam waate cheikh waate samba waate loolu bokkaale la ku ko def boo dee boo tuubulee da ngay dem safara parce que yonent bi moo ko wax yonent bi moo ne man xalafa bi gayri llahi faqad ashraka wa kafara yonent bi ne ne képp ku waat ci ku dul yàlla bokkaale nga yéeféer nga yonent moo ko wax kon mu leer kooko ku la ko mun a wax nga gëm ko it yonent bi lii la la wax léegi nag da ngay xool ñoom ñaar kan nga gëm bu dee ki la ko wax nga gëm nga jàpp bu dee yonent bi nga gëm nga jàpp li la yonent bi wax te jullit mooy ki nga xam ne li ko alquran wax lay gëm ak li ko yàlla wax ak yonent bi lan la yàlla wax maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasulahu amran an yakunu lahum alxiyara min amrihim wa man yaasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan baida suñ borom nee na ci suratul ahzab warul julit bu góor ak bu jigéen yàlla akub yonent wax ba pare nga ñëw naan waaye jullit mooy koo xam ne suñ ko nee yàlla nee na yonent nee na warul wax waaye diw nee na sàmba nee na lii adduna bi tey boo xoolee ma ne jullit du wax loolu yàllaa ko wax sunu borom nee na fala wa rabbika laa yuminuun hatta yuhakkimuuka fii ma shajara baynahum giñ naa ci sama màggaay man yàlla jullit yii suñu jullee man yàlla du ma ko nangu suñu wooree du ma ko nangu lu dul ñu nangu yow muhammad attewoo li nga indi kon l'islam moo ñu wax ne njabar gisaane picculu seetlu seet ci biddéew yi seet ci ndox dafa xaraam l'islam moo ñu ko wax dafa xaraam boo bëggee nekk jullit da ngay bàyyi loolu soo bëggee nekk jullit da ngay dëppoo alquran ak sunna leneen lu dul alquran ak sunna du diine yàllaa ko wax wa anna haada siraati mustaqiman fattabi'uuhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun borom bi nee na lii mooy sama diine wa anna haza la wax lii siraati mooy sama yoon man yàlla mustaqiman dafa jub xoj xoolal chaque jour nga taxaw di ñaan yàlla ihdina siraat al mustaqim chaque jour jullit bi ñaata yoon lay wax ihdina siraat al mustaqim booy julli suba di nga ko wax ñaata yoon minimum ñaari yoon tisbaar ñeenti yoon muy ñaata juróom benn tàkkusaan nga wax ko ñeenti yoon muy ñaata muy fukk timis nga wax ko ñetti yoon muy ñaata gee jot nga wax ko ñaata yoon ah yëpp boo ko boolee muy mu nekk 17 te mënagoo jub ci siraatal mustaqim te chaque jour nga ñaan yàlla fukki yoon ak ñaar juróom-ñaar ne yàlla teg ma ci yoon bu jub bi te mënoo jub lu tax te saxaaba yi ñoom bañ koy wax rek dañoo jub yow nga koy wax doo jub lu tax parce que li nekk ci sa xol ak li nekk ci seen xol du benn ñee dañoo gëm yàlla kese ñun nag dañoo gëm yàlla ak yaali yàlla ak loolu ngay dégg fii sax ñuy wax naan yàlla kese dafa ri tax foog yàlla ak non il faut nag maam yi li ñu nekkoon il faut a ko ɗum il faut ko mamiraɓe mbaɗanno ko fof mbaɗen ɗum ko ɗum tawɗen ɗo ɗulol ngay degui ñi wax walla dulol ngay ndi wax ha say ko ɗum anda est ce que ko anda ko wiya yo waɗe walla koko wiya ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi ko wiya yo waɗe holko allah wi yo waɗe ko taaniraaɓe tawa ko walla ko allah wii ko lan la yàlla wax nañ def lan li yàlla indi yonent bi indi ko walla li maam yi indi lan la ci yàlla wax nañ def ñaar yooyu benn rek la tontu bi benn kese ngay tontu ma ne li yàlla wax nañ ko nañ ko topp walla li maam yi indi nañ ko topp ban ban ban moo ci dëgg li yàlla wax bokk yi yàlla mu ne subhanahu wa taala man yàlla maa wàcce alquran après ma ni na ngeen ko topp kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija naas min azulumat ila nuur téere la boo xam ne maa ko wàcc ci yow pour nga génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer léegi nag téere ba buñ ko bàyyee est ce que danañ mën a dem ci leer loolu moo tax ñu dugg ci shirk dugg ci ay gisaane dugg ci ay petaaw dugg ci ay xaaw dugg ci ay laar dugg ci dugg ci ba nga gis jullit di sangoo deret di sangoo deret di def ay sacrifice yenn saa yi mu dagg baaraamu tànkam yenn saa yi mu dagg noppam yenn saa yi mu dagg baaraamu loxoom yenn saa yi mu joxe ci doomam yenn saa yi mu joxe jabaram yenn saa yi sax mu joxe lu gën a sori loolu papaam walla yaayam ndax lan ndax poñetu àdduna ndax poñetu àdduna li nga xam ne yàgg-yàgg walaw ista alfa aamin wa alfayni baadahu fala budda yowman tadxulul qabr boo dundoon junni at ñu wisaat la yeneen junni at yàgg yàgg yàgg da ngay dugg bàmmeel mbokk yi nekke kon foog ñu am tawxiid foog ñu nangu wéetal yàlla foog sunu xel ak sunu xol ñu génn ci lu dul yàlla jullit xelam ak xolam yàlla moo ko moom dañu ne yàlla bu doon dina wàcc ci kaw suuf du dem ci jàkka yi du dem fu ñuy jànge alquran ñu ne fan lay dem ñu ne ci xol lay nekk waaye bépp xol boo xam ne dafa dugg mu fekk fa keneen day génn moo tax ngeen jàng alquran ne yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allah bi maaza bi maaza bi qalbin salim gis nga bis bi nga xam ne alal du jëriñ maal doom du jëriñ ñu ne yàlla bis bi lan mooy jëriñ mu ne ku ñëw ci yàlla fekk sa xol bi mi ngi set wicc kenn nekku ci ku dul yàlla loolu mooy problème ñun nanguwuñu sunu xol yàlla kese nekk ci foog rek yàlla ak yàlla ak yàlla ak yàlla ak yàlla ak te loolu musiba la ixwatal iman foog jullit mu raxas xelam la aqida illa bil aqli wala al aqli illa bil iman wala al iman illa bil maarifa wala al maarifa illa bil quran faman arafa quran arafa rabbah wa man arafa rabba daa ilayhi wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ñu ne kenn pas-pasam du mën a wér laa aqida lañ wax illa bil aqli kenn ci mbindee fi sa pas-pas ci yàlla du mën a wér lu dul sa xel dafa wér xel mi foog mu wér sa pas-pas bi nga fas doog a wér wala al aql illa bil iman xel mi du mën a wér lu dul nga gëm yàlla wala al iman illa bil maarifa ngëm yàlla du mën a wér lu dul xam-xam ñëw wala al maarifa illa bil quran doo mën a am xam-xam lu dul nga jàng alquran gis ngeen léegi nag boo jaarul fii foo jëm jàngo alquran li muy tekki mooy doo am xam-xam amoo xam-xam li muy tekk mooy sa ngëm du wér mukk da ngay làmbatu rek da ngay làmbatu képp ci ñun ku nanguwul jàng alxuraan wallahi amoo ngëm yàlla cent pour cent amoo ngëm yàlla cent pour cent parce que alxuraan moo lay jàngal lan ngay gëm nan la ñuy gëmee yàlla lan mooy iman arkaanul iman ñu ne la sitta al imaanu billah man huwa allah al imaanu bil malaika man humul malaika al imaanu bi rusul man humu rusul al imaanu bi yowmi al axir maa huwa yowmu al axir al imaanu bil qadr xayrihi wa charrihi yëpp nga jàng ko benn par benn benn bu ci nekk ay toni toni toni téere lañ ci taalif yow xamoo ci dara moo tax boo jógee di bokkaale rek loo gis nit ñi def nga def ko loo gis nit ñi def nga def parce que da ngay da ngay jaawale xamoo xamoo li yàlla bëgg munoo ràññee da ngaa mel ne ku bàyyi ba guddi nga jël sa saak dem ci àll bi uti mat yow da ngay jël rek di dugal sa biir saak parce que guddi la lëndëm la mën ngaa fekk jaan bu lemu nga jël dugal ci biir saak bi xamoo lan la mën ngaa fekk ay dem àll ba yow kong nga jël dugal ci biir saak bi balaa ngay xam li nga jël lu bari du mat kañ la bët set bët set mooy nga am xam-xam wallahi fekk delluwaatuñ ci alquran sunu ngëm yàlla du mën a wér sunu ngëm yàlla bu wérul munuñu am pas-pas bu wér lan mooy pas-pas yenn saa nga dégg ñu ne aqida baat boobu fas-pas aqida loolu lay tekki ñu ne diw ndax pas-pasam wér na lan mooy pas-pas pas-pas baatu olof la da ngeen di jàng yàlla mu ne wa min charri nafasaati fil uqadi al uqad mooy aqida xam ngeen loolu lu muy jàngale wa min charri nafasaati fil uqad mooy yow yàlla yàlla nga ma musal ci jabarkat yi ñiy tofli ci wëñ bu weex wëñ bu xonq wëñ bu ñuul yow yàlla yàlla nga ma musal ci ñoom ñaata fii ngeen gis ku takk wëñ gu weex wëñ gu ñuul wëñ gu xonq parce que baaraamam day métti parce que bëñam day métti parce que dafa am angine parce que tànkam day metti mu dem ñu mocc wëñ gu weex wëñ gu xonq wëñ gu ñuul tofli ko fas ko takkal ko ci ñaata ah te ñooñu nee nañ jullit lañ yenn saa yi sax nga den rek ilimaan bi ci jàkka ji mu ne allahu akbar wëñ bi nekk ci baat bi te mooy ilimaan bi wala mooy bilaal bi nodd na ba pare kooku nga defe ne li mu noddu xam na ko te mu ngi taxaw ci kanam yor micro taxaw ci kanam yàlla naan ashhadu allah ilaha illa allah fekk wëñ baa ngi ci baat bi est-ce que laa ilaha illa boobu wér na wérul parce que bu gëmoon ne yàlla la kon du dem di uti lii mu def ma da foog ñu delluwaat mbiri bu leerul ci ñun nii la ñuy nekkee rek ba dee dem ci yàlla yàlla jëw bi ñu safara kuy bokkaale boo dee da ngay dem safara yàlla moo ko wax jarul làq-làqal jarul nëbbal jarul seddal jarul ëf kuy bokkaale boo dee da ngay dem safara bu yeboo ñu wax ko nit ñi mu leer pour nit ñi bàyyi ko ku ci dëgër bopp wallahi boo dee dugg bàmmeel di nga xam ne dëggal te boobaa day nekk c'est trop tard yàlla moo ne bu ñu bokkaale kon nañ ko wax nit ñi lan mooy njëriñu ñu noppi ba nit ñi dee dem safara ëllëg musiba boobu balaa la tey kenn ci ñun bu soloon yëre yu weex ñoo bëgg a toog ci huile gisu ko nga ni ko moytul mu taxaw xool gis huile la après lu mu lay wax daf lay mere daf lay saaga dag jërëjëf waay noonu la lii mel ku ko bàyyul boo dee da ngay dem safara yàlla moo ko wax subhanahu wa taala kon nañu jàngal nit ñi pas-pas al uqat pas-pas mooy li nga fas ci sa xol nga jàpp ko fii fi mu nekk ni ñu ñu toog fii ku nekk am nga loo jàpp fii takk ko ba mu dëgër kenn mun ta fexe ba nga bàyyi ko loolu mooy pas-pas loolu nag dañu ne na wér soo jàppee lu wérul safara nga jëm misaal laay joxe yàlla dane man yàlla kenn laa jàng ngeen ko ci alquran qul huwa allahu ahad loolu mooy lan yàlla kenn la léena yow boo gëmee yàlla ñett la nga xëy suba naan nii loolu foo ko gëm pas-pas la wala du pas-pas te yàlla nee na man kenn la qul huwa allahu ahad yàlla kenn la lam yalit walam yulat jurul kenn kenn juru ko walam yakun lahu kufuwan ahad amul dennandoo amul soxna amul jabar yow ñu ne la Maryam mooy soxnaam Isa mooy doomam nga gëm loolu yow te yàlla nee na loolu bokkul ci pas-pasu jullit yow nga gëm loolu fas ko ci sa xol est-ce que yaag jullit yéen a bokk pas-pas bokk leen pas-pas est-ce que yaag Muhammad yéen a bokk pas-pas bokk leen pas-pas parce que Muhammad li mu gëm mooy allahu wahid yàlla kenn la loolu la jàngale loolu la alquran bi mu indi bàyyi fii beneen mais yàlla amul doom yow nga fas ne yàlla am na doom est-ce que yaag jullit yéen a bokk pas-pas tontu bi mooy déedéet bokku leen parce que yàlla moo wax ci alquran man yàlla awma doom mu ne in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda asamaan ak suuf yàlla waxul sax suuf asamaan la njëkki in kullu man fi samawati wal ard ñëpp ñu nekk asamaan mooy malaaka yi wal ard ak suuf si mu ne ñëpp ay jaamu yàlla lañ amul kenn koo xam ne yaa ngi fi lu dul jaam nga ak koo xalaat rek fii may wax ak yow koo xalaat rek kooku jaam la abd ñëpp nag yàlla nee na ay jaam lañ ci kanamam waaw yàlla bu waxee li yow nga jàpp am na ñoo xam ne du ñu jaamu yàlla est-ce que yaag jullit yi yéen a bokk pas-pas il faut pas-pas bi leer li ngay gëm mooy yàlla kenn la lii ñu wax dafa sori yàlla subhanahu wa taala yàlla jomb na di ko am ay soxna doom yàlla nee na ay jaam rek laa am ay jaam awma doom awma soxna kon pas-pas boobu dafa war a leer waaye ay melokaanam moom yàlla ay sifaat xoolal tey waxuma la sax ci beneen côté bi mais ci jullit yi da ngay gëm ne jullit boo xam ne ñëw bi ne la gis naa yàlla ñaata xale yu góor tey ngeen gis yu dof lu leen dofloo parce que dañu ne dañoo gis yàlla ñaata est-ce que yàlla wax na ci alquran man danañ ma gis ban aaya la yàlla lan la wax laa tudrikuhul absaar bët munu maa gis man yàlla wa huwa yudrikul absaar man yàlla maay gis bët wala loolu du alxuraan mbokk yi ma ne bi ñu bàyyi alxuraan la ñu alku dañuy sonn rek mais fekk delluwaatu ji ni la ñuy mel rek nekk ay jullit yoo xam dañuy làmbatu di tatone dugg ci néeg bu lëndëm di làmb buntu bi fan la nekk mooy lu nu dal nii fokk ñu delluwaat ci pas-pas yu leer yonent yàlla Moussa dafa dem ci tuuru Sina montagne bi fi yàlla doon waxee muy dégg yàlla di wax ak moom ba caagu wax ji neex wax ji neex trop ci moom mu ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla ne Moussa lan taraani munoo maa gis yow Moussa attanoo maa gis man munoo maa gis xejuma ci yow Moussa la de Moussa laa wax Moussa xam ngeen Moussa de mooy kan waxuma nit ordinaire yi de waxuma cundung njundung yi de Moussa laa wax damaa tëb cundung cundung yi Moussa ulul azmi min ar-rusul ulul azmi yonent yàlla wax ci alquran 125 lañ seen tur 125 ñoo nekk ci alquran 25 ñoo nekk ci alquran 25 yi juróom la ci yàlla tànn mu ne ñii ñooy ulul azmi Nuh Moussa Ibrahim Isa Muhammad Moussa laa wax moo bëgg a gis yàlla kooku bokk ci juróom ñooñu moo bëgg a gis yàlla yàlla mu ne ko munoo maa gis lan ñu jàng arab xam nañ baatu lan loolu mooy problème suñ problème yëpp mooy jànguñ lan la yàlla waxul sax lam lan lan taraani lan munoo maa gis munul nekk c'est impossible waaye Moussa amul problème unzur ilal jabali xoolal montagne bi in istaqarra makanahu sawfa taraani montagne bi bu saxee place am dig ma gis amul problème sunu borom subhanahu wa taala mu ne ci alquran ba tey falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakkan ba yàlla feeñoo montagne bi borom xam-xam yi nee nañ booy boyal furno booy boyal furno étincelle yi génn étincelle yi tàkk-tàkk yooyu di fet-fet di génn ci xal yi ne benn la ci yàlla génn ci leeram sànni ko ci montagne bi montagne bi explosé Moussa xëm bi mu xëmmilu ko lan la wax tuub naa yow yàlla dootuma waxati mukk dama laa bëgg a gis nga nekk benn sénégalais buy kiris karas tubéyam fanaani baal ba bët set ñëw ne da ngaa gis yàlla boo doon jaamu yàlla sax di naafi la di woor guddeeg bëccëg di julli dëkk ci alquran dëkk ci jàkk ji sax xanaa nit ñi ñu ne war dëgg la kay dëgg la parce que kii moom du génn jàkk ci waaye koo ko gis ëpp ñi ci ëpp seen sirib yaa ngi feeñ ci biti est-ce que loolu diine la loo xam ne yonent ya même loolu Sëriñ Tuubaa waxu ko Sëriñ Tuubaa wax na waxul man gis naa yàlla Alaaji Maalik waxu ko parce que xam nañ ne loolu mënul nekk xoolal nit ñi nag ñoom ordinaire yi ñun ñi ñun léegi nga gis fi am ku ñëw jël micro na gis naa yàlla démb ci guddi fa yomb torop suñu benn dëkkandoo fii géejawaay fii rek maa ngi moom ñoo dëkk xam naa mu may dégg sax doom bi naa ñëw ne ko papa gis naa yàlla mu ne après loo ko wax mu ne waxuma ko dara de mu ne xaar ma mu ñëw mu ñëw jël bale taxaw bi mu fëgg ko doom bi ba bale bi damm mu ne ko nga gis ko nga xam ne man plombier laa maa ngi bëri problème waxoo ko mu réglé ko soo léegi boo ko gisee di nga ko wax mu réglé ko ko dóor bale ba mu dam ñëpp ñëw lan la lan la mu ne dafa gis yàlla waxu ko sama problème man may plombier damay toog ay weer duma liggéey may taqale mu gis ko waxu ko sama problème pour mu réglé ko waxul dëgg tol na yàlla xanaa Macky Sall sax boo ko gisoon tey ci guddi ngeen toog nii sa problème war na réglé wala wala waxuma laa nag yàlla subhanahu wa taala mais yàlla moom soxlawul gis parce que aqrabu ma yakunu al abdu min duaihi wa huwa sajid soo bëggee jege yàlla rek waxuma la nga gis ko mais nga jege ko nga jege ko nii su jootal rek su jootal yonent bi nee na soo sujjeetooy jege nga yàlla sallallahu alayhi wa sallam lan la alquran wax wasjud wala loolu alquran wasjud waqtarib su jootal nga jege yàlla boo ko ñaanee mu may la moo tax yonent bi ne amma ruku fa azimu fihi rabb wa amma sujud faksiru fihi du'a su ngeen rukoowee tagg leen yàlla màggal leen ko kañ leen ko bàkk leen ko su ngeen sujootee ñaan leen gis nga parce que jege ngeen ko mais xam nga kuy kuy def loolu mooy ku xam mais ku xamul ku xamul du du def dara kon la aqida illa bil aql pas-pas du mën a wér lu dul xel wér xel moo tax ci lislaam ku amul xel bokkoo yàlla alquran bi muy wax lan lay wax la ayatin li ulil albaab inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albaab nekk na ci kéemtaan bind bi yàlla bind asamaan ak wuuteel gi muy wuuteel guddeeg bëccëg waxti laa fi lay wa naxaar guddeeg bëccëg di wuute yàlla mu ne yooyu ki koy xool di ci jëlee kéemtaan mooy borom xel ku am xel mooy xool asamaan ni ko yàlla bindee muy xool guddeeg bëccëg ni muy wuutantee ki ciy jëriñu mooy ku am xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa diin li man laa aqla la ku amul xel amoo diine moo tax dof su ngeen jàngee sart yii wéral diine dof bokk ci dañu ne dof rufia anhul qalam hatta yafiqa al majnun rufia anhul qalam ku dof xalima gi kenn dootu la bindal bàkkaar big bi dañ koy yëkkati big biñ lay bindalee bàkkaar dañ koy yëkkati ba ba ngay wér parce que léegi amatoo xel dof amul xel moo tax dof xel bi du teey da ngay fekk dof ci mbalit mi mu toog di lekk muy ñaag di wan sax yi wadd yow ñemewuloo ko parce que moom xam nga tax mu ñeme ko amul xel xel bi du tey moo tax ku amul xel amoo diini parce que nekkatoo nit kenn waratulaa julliloo kenn warulaa woorloo waratoo def dara ci diine parce que da ngaa wératut bàkkaar doo ko am lu dul nga wér bu fekkente ne li la dofloo feebar la wala accident la wala yu demee noonu waaye boo jëlee yàmbaa ba dof wala nga logi xoox dof wala nga pikiru ba dof wala nga gens ba dof boobul bàkkaar yi day gën a bëri di dem parce que yaa dofloo sa bopp tere woon nañ la ko waxoon nañ la li bàyyi ko day yàq xel nga bañ moo tax mandikat soo mandee nga fase sa jabar charia nee na fase bi tàbbi na parce que yaa dem nga yàq sa xel sa jabar perte nga ko ku mandi ñëw ne jabaram fase naa la ñu ne déedéet dafa mandi woon xamul sariya nee na fase bi am na parce que dañ ko tere woon sàngara mu dem def ko sa fase bi tàbbi na gis nga parce que l'islam day contrôler dafa am juróom ci nit amoo droit ne maa ko moom dama koy lu ma neex def ci déedéet bokk na ci sa xel amoo droit yàqu alal ji amoo droit yàqu parce que l'islam moo ko moom yow moo moo ko kon nañu góorgóorlu suñu buggee suñu tawxiid baax suñu buggee bàyyi ay njabar bàyyi bokkaale bàyyi ay gisaaneeg seet ak pitaaw suñu pas-pas mooy wér ci yàlla pas-pas yi bu wéree suñu diine wér waaye pas-pas bi bu wérul lan la ñuy gis mooy ni ni ñu mel nii rek boo waree tukki balaa ngay dem nga ni xaaral ma dem seetlu yoon wi ma dem seeti yoon bi waaw nga dem ñu ne la jëndal picc wala gis nga jaaykatu picc yi da ngay gis ku jënd picc daan ne picc mi taf téye di ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan ñaan deux heures de temps doo ci yem de daal di koy wëra la sa bopp naan nii benn waaye daa jënd picc jàpp picc mi deux heures de temps di ñaan ba pare wëra la ko bopp bi daal di sànni picc mi picc mi daal di jóg rek daal di wàccaat benn dof xool waa ji ba caag ne ko grand mu ne ah mu ne ko li nga ko sëf dafa diis li nga ko sëf dafa diis attanu ko est-ce que waxul dëgg te dof moo ko wax loolu de dof moo ko xool ne ko li nga ko sëf dafa diis wax na dëgg nga sëf picc mi lu mu attanut boo bëggee jël yow say problème adduna ak àllaaxira sëf ko picc mi picc mi du naaw loolu dafa xaram dafa xaram ci lislaam wala nga sànni ko mu naaw bu demee ndeyjoor nga ne ah su may tukki nii laa war a jaar bu demee càmm ah non mooy tukki nii laa war a jaar mu jaral la boo waroon dem kolobaan sax picc mi jubal nii nga ñëw fii ba egg daal di tourné waat jëm kolobaan loolu mooy lan yëfu dof yooyu mooy lan loolu dafa xaram tifaaqan ci islam yonent bi daf ko tere sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bokk na ci pas-pas bi pour mu wér aqida bi xel aql su aql bi wéree imaan bi day wér su xel mi wéree rek ngëm yàlla gi day wér parce que ngëm bi bu ñëwee day tegu ci xel mu set waaye bu xel mi wérulee pas-pas bi bu ñëwee du mën a wér pas-pas bi day feebar su pas-pas bi feebaree ngëm yàlla bi day feebar ni nga gëmee yàlla du valable du baax luñ la wax ci yàlla rek nga gëm ko loo foog dafa ne yàlla la mën na dara loolu moo tax ngay xëy gis yenn saa yi nga xëy gis ci mbedd mi ñu teg fi juróom-ñaari nen juróom-ñaari guro juróom-ñaari sondel yenn saa yi sax ñu lal ñu lal ci suuf juróom-ñaari perkaal teg ko ci kaw soo nga gis nit ñi di wiiri nag ku nekk di wiiri ay téye leen xale yi téye leen xale yi lii ñu teg ci koñ bi ñàkk gëm yàlla billahi wallahi taala yi ñàkk gëm yàlla moo tax loolu ñu def guro lu ci nekk lu nekk ci guro gi nen yi lu ci nekk ah lan moo nekk ci sondel bi yenn saa yi da ngay jékki-jékki dégg ñu ne am na kuy saraxe yàpp kum sarax yàpp nga dee nga gis nit ñi di daw yenn saa yi nga jékki-jékki dégg ñu ne am na benn waay boo xam ne ku ko nuyu rek mu yóbbu sa waay yàlla kenn dootul nuyoo koo ne nii mu ne salaamaaleykum léegi man ibaadu laa du ma joxe loxo Sénégal moo neex rek parce que ñàkk gëm yàlla ku gëmul yàlla wallahi foog nga am loo gëm yàlla ku mu manqué ci yow rek foog am lu ko wuutu waaw waaw yàlla saa yu manqué ci dënn foog am lu dugg ci dënn bi nekk fa loolu nag léegi mooy nekk yàlla moo tax suñu borom mu ne afara ayta man ittaxasa ilahahu hawa xoola ki nga xam ne bànneexu ba am na ñoo xam ne football mooy seen yàlla am ñoo xam ne làmb mooy gis ngeen li ma doon wax ci bokkaale xool leen làmb bi làmb ji yëpp bokkaale la ba mu jeex ay millions la ñuy financé ci bokkaale moo tax làmb xaraam seetaan ko araam mais xoolal tey Sénégal boo fi toogee naan làmb daa araam dañ naan moom kii ku ko joxoon combat sax mu bëre loolu la ñuy wax waaw parce que lan lu ci nekk ay millions mais millions yu araam yoo xam ne borom bu dee dugg jahannama yooyu ban ban njëriñ la am xam nga nit ñi fi ñu dul xalaat chaque jour mooy après yow mi dugg ci lii ba nga dee après soo dee ba nit ñi suul la ñibbi après lu jër a sóoraale la war nañu xalaat dee millions yi nga am ci lu araam boo deewee te yonent bi nee na man akla luqmatan min haram laa tuqbal lahu salaata arbaina yowman boo lekkee benn fistin bu haram boo jullee 40 jours yàlla du ko nangu benn fistin la wax benn bu araam wallahi boo doon julli 40 jours yàlla du ko nangu bu yeboo nga tabax ci jàkk bu yeboo nga aji màkk bu yeboo nga yóbbu Sénégal gi yëpp màkk xam nga nu mel ku dem douze ba pare jël ay sawam di ko laaboo dara sellu ci baaxul bu leen yaakaar ne lii ngeen di gis nii ci kaw ay wax ak ay def defle ay ñoo xamante ne bëgg ci xaalis bi moo tax duñu wax dëgg loolu ngeen di gis dafa ne dëgg la l'islam dafa am règle yoon la alquran mooy firi l'islam alquran bi lépp lu mu ne baaxul ku ko def baaxul ak lu mu ku ko mun a doon nag ku mu mën a doon soo alquran ne lii baaxul soo ñëwee ne baax na da ngay sonal sa bopp rek baaxul parce que alquran ne na baaxul làmb dafa xaraam xool leen ñeent moo tax làmb Sénégal araam ñeenti mbir moo wax leen ko tey ngeen dégg ko bu njëkk bi mooy yaramu neen bi ñuy simmeeku jullit bu góor fan la awraam tàmbale ak fan la yem damay damay laaj day tontu boobu jumbax ba ci um mbër yi seen jumbax dañuy feeñ wala du feeñ day feeñ waaw awra jullit kenn du ko xool yeneen bi nee na laana allahu nazira wal manzur ilayhi yow mi ñuy xool sa awra yàlla rëbb na la yow mi koy xool yàlla rëbb na la kon yow mi koy seetaan nag yàlla rëbb na la nañu bàyyi xel bu baax li ñuy def bu ñu àdduna këf lii say affaire seytaane yi ba mu yóbbu ñun ay jullit lañ lu yëf yi xumb xumb xumb bu yóbboo nga bàyyi xel sa bopp bàyyi xel sa njaboot mais mal asaf beneen mooy xool leen bokkaale bi dañuy jël alxuraan di ko toroxal di ko bind ci ay mbubb di ko bind ci ay sër nga gis waa ji taxaw ci kawam ñuy sotti ay ndox ci kawam wala gis leen loolu wala ñu taal ko indi indi téere yi taal di ko taal ci safara ci biir nit ñi di xool alxuraanu yàlla bi ñu koy lakk wala nga taxaw ci kawam wala nga gis waa ji sol ko takk ko ay téere téere yàlla subhanahu wa taala ah lan la yàlla wax ci quran téere bi laa yamassahu illa al mutaharun tanzilun min rabbil alamin ñuy toroxal téere bi nit ñëpp di seetaan bokkaale nag gudul jeex te toll nañ foo xam ne tey toll nañ foo xam ne ci ay combat suñ ne woon benn mbër yow yaay bëri ak diw da nga ko bëgg a daan waaw ñu ne ko foog nga rey nit dana dem rey nit ma da nga dégg ñu dem ci armée li sax di sulli di sulli ay yaxu néew ñaata yoon nga dégg gardekat armée yi naan mbëri dañuy tëb armée li guddi di ut ay yaxu néew ñaata yenn saa yi ñuy wax ci kenn ndënd mi nga yor yaxu nit nga koy tëggee boo ko tëggee ba waa ji dégg ko jeex na dootul déggati day tëx ba combat bi di jeex am na benn mbër bu fi ne woon combat yi dafa am lamb ji dafa am ay jinne nit ñi weddi ko xam ngeen ne raw na lu ëpp jinne raw mu ngi ci fii kase bi yegg léegi lu nekk jaral na leen ko lu nekk da ngay gis koo xam ne day dugg àll bi lu nekk mu def ko dafa haram beneen mooy yàq waxtu wi xoolal nit ñi dañuy xëy nekk ci stade yi suba ba ngoon ba gee kenn du julli ñoom ñaar ñi bëri sax duñ julli timis wala arbitre yi duñ julli moo tax am na benn jour ñu ne suba la weer weer wi feeñ nit ñi war a séentu weer bis boobu combat la woon ñu xëy suba ñu ne gisuñu weer wi dañ koo xool bis bu année boobu moom seen kenn amu foon droit naan gisuñu weer parce que xooluñu ko ñu ngi woon ci télé bi di xool yaakaar na ci combat yu mag yi la amagul sax ay at yu néew ah ñu ne suba la suba la ñuy séentu weer wi dañuy woor ñëpp nekk ci télé bi xëy suba di rey nit ñi wax kenn gisul weer wi kenn gisul weer wi fan la ñuy gisee weer wi parce que seetuñu weer wi ñu ngi doon seet làmb bi ñu weer wi yitteeloon gis nañ ko mbokk yi fokk ñu bàyyi xel yàlla fokk suñu jëf ñu boole ci yàlla ñu bañ a topp xumb-xumb àdduna bañ a topp yii xew ci mbedd yeeg dëkk bi ñu xam ne ñun ay jullit lañ jullit nag dafa am moom fu mu war a teg tànkam bañ a xool rek waaw yenn saa nga dégg ñu ah lii wax lii moo xew ci jamono est-ce que loolu la yàlla wax lu xew ci jamono nañ ko def nañ ko lekk wala nañ ko naan wala nañ ko sol wala nañ ko ndax loolu la déedéet jullit moom dafa am dundin bu mu war a dund mooy dafa war a jaamu boroomam teg tànkam ci laa ilaha illa allah muhammad rasulullah teg tànkam ci tawxid ci kennal yàlla loolu mooy sa diine yow loolu nga war a dund waaye boo fi nekkee bëgg a toppandoo nit ñi ëllëg bu leen yàlla di yóbbu safara da lay yóbbaale mbokk yi ci gàttal loolu laa amoon lu ma leen di fàttali di ko fàttali sama bopp di ko fàttali képp ku bëgg a dugg aljanna di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañu yàlla dugal aljanna incha allah lii moo doon première xaaj bi ñaareelu xaaj bi maa ngi ko leen di maa ngi leen koy xaaree muy ay question ak yu demee noonu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu
jazakumullahu xayran ya ustaz mbokk yi jàpp naa ne ñu yëpp ñoo bokk déggandoo waxtaan wi mu doon ay fait ay réalité yoo xam ne li ñuy dund la tey ci sunu réew mi li fi ustaz jot a wax yaakaar naa amul lenn lu ci lënt amul lenn loo xamante ni li ñuy tegu ni sunu bët ba tax na lenn rek lañ ci mën a yokk du bari mooy islaam mooy diina ji matale borom subhanahu wa taala bi mu yónnee yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi